waa mouvement taxawu sunu gox ñi ñoo may accompagner nekk muy ñi teew ak ñi teewul ñi ne ci biir dëkk bi ak ñi newul ci biir dëkk bi kon nag maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey nag mu am benn kàddu bu gàtt rek imam Malick boo xamante ni si war nañ koo lancé waa Sénégal yëpp war koo dégg waa àdduna yëpp war koo digg tey jii kat dafa nekk un an bi nga xamante ni si mouvement taxaw sunu gox am na ko constat bi ñuy def kat mooy que ni ñi fi ñibbi barzaq fan yi dafa xaw a bari. am na ñoo xamante ñi ngi woon daaw fii teew yàlla yóbbu na leen barzaq ñu leen war a ñaanal yërmandeeg njëggalu suñu boroom yàlla defal leen ko tey jii nag taxaw sunu gox mi ngi nii di mouvement boo xam ni day dox ci fànn yu bari muy lu mel ni wàllum éducation. daaw plus de 500 élèves ñu may leen fi ay fourniture scolaire jamono yee ci ginnaaw ñu def benn programme sargal waa UCG ku xool Thiès ni mu taaroo jamono ji xam ni kat am na lu waral taar boobu mooy ñi nga xam ne guddig bëccëg ñoo tonni mbalit mi ci dëkk bi ñu xëcc leen jox leen raaya parce que li ñu xamoon ñuy jox raaya mooy borom alal mais ñun defuñu loolu ñun dañuy xool ñi nga xamante ne ñoo jëmale réew mi kanam ci yar ci jàmm ak salaam ñu jël leen ay raaya jox leen jamono yi defoon nañ fa ay consultation gratuite yoo xamante ni si plus de quatre cent et quelques personnes ñu consulter leen ci suñuy propre moyen ci domaine santé boobu nag ma xuus si tuuti parce que diwaan bi ñu nekk di Mbour amuñu poste de santé kooku moom ni ko Sénégal gi yëpp xam Mbour 1 gii ñu nekk amul poste de santé poste de santé bi fi nekk mi ngi nekk cité ou cité Ousmane Ngom la nekk mooy mooy cité Ousmane Ngom bi nekk côté gaaru Thiès mais ici à l'intérieur amuñu fi poste de sant mu doon loo xamante ni askan waa ngi koy jooy bu yàgg ba tey mu doon loo xamante ni siit fas nañ cee xar suñu tànk tubay incha allah naa ngir loolu mën a ànd ñaareel ba ci li ma bëgg a wax mooy imaam li xew léegi wax ci imaam ndaw ñaa ngi dee imaam jeunesse baa ngi dee imaam géej gi mi ngi rekk waa Sénégal imaam géej gaa ngi ñu toroxal ñaar fukki at yàllaa ngi nii saa chaque année phénomène bi ñëwaat muy lan phénomène barza barzaq imaam ndaw ñaa ngi jeex nan lañ ci wax ñi ci war a wax yépp nañ ci wax abis ba dong laa lay fàttali yonent moo ni woon alayhi salaatu wasalaam kenn ku nekk ci yéen sàmm nga daa ñu la laaj yow mi imaam jàkka ji noo ko sàmmee woon chef de quartier daañu la laaj quartier bi na nga ko sàmmee woon président dana la laaj réew mi naka nga ko sàmmee woon man mii Ablaye Dieng danañ ma laaj waa mouvement taxaw suñu wax naka nga leen sàmmee woon waa ji yor poulailler dinañ ko laaj ëllëg naka nga sàmme woon ginaar yi borom kër dinañ ko laaj naka nga sàmme woon sa kër kon nag waajib la ci képp koo xamante ni tu es de voix boo waxee nit ñi dégg la nga wax ngir yàlla ak phénomène bii ñu mën koo arrêté muy ci état di ci kër yi di wayjur di képp koo xamante ni porte de voix nga nga wax ci phénomène bii Sénégal a ngi ñàkk ay doom Sénégal a ngi ñàkk ay doom metti nañ torop heure bu ñu xëyee ndaw ñaa ngi dee ndaw ñaa ngi dee ba kañ li ñu jàmman lan la teral wooy jur bëgg a fondé famille bëgg fonde loo xamante ni si mooy jagal société bi te ñu gisuñu kenn ku leen ci accompagner dañuy faral di wax ay formation ay formation yoo xamante sii si mosuñu si teg suñu bët ay formation yoo xam pour nga am ci accès c'est tout un tas de problème ba tax na nag tey jii nag ma ne nag il est que mouvement yi ñu xalaat parce que li yàlla suñu borom wax ci alxuraan imaam gën ñu la ko xam ba muy wax yaa uli albaab yéen la wax yéen borom xel yi mënuñoo bokk ci njabootu si euh, Cheikh Sidi Aboubacar si radiyallahu taala anhu yaroo ci keppaaru sëñ Abdou Aziz si al amin mu ñuy wax daañu wax lu ne lu ne lu ne ñuy dégg ñuy màgg ba heure yi bëgg doon ay cellule dormante ci biir dëkk bi duñu ko def li ñu jàng ci daara ji la ñuy exposé ci pénc mi pénc mi mën cee jariñoo moo tax tey jii kat ñu fas yéene lancé benn projet boo xamante ne di ngeen ko gis léegi balaa yàgg à travers les à travers les traits yoo xamante ne ay documents yoo xam ne fas ñu ko réaliser loolu mooy lan une personne un terrain. nit ku ne da ngaa war a am suuf soo dëkk muy ndaw di jigéen di mag di góor ak koo mën doon fas yéene nañu lancé projet boobu nag fan yii ci tey jii lañ ko fas yéene lancé ba su tey bii nga xamante ne si bu ñu fi jógee incha allah dinañ koo partagé. wax kenn ku nekk naka ngay jaar ba ñu accompagner la ba nga mën a am ab terrain loolu mooy première phase bi deuxième phase bi nag mooy naka la ñuy def ba terrain yooyu ñu mën koo tabax bu ko defee ndaw ñi kat seen xel dana mën a dal pour ñu war a moo toog ci réew mi war a mën a liggéey réew mi imam Baye Mor Gaye yaakaar naan loolu daal bokk na ci projet phare yi nga xamante ni mouvement taxaw suñu gox fas yéene taxaw lu mel ni sunu domaine national bi nga xamante ni waa Thiès ñun ñoo ko moom muy suñu mbuurkaat dee bind naa benn projet boo xamante ne si dinaa ko attribuer le gouverneur le préfet bu jaree ma dem ba présidence de la ñu ko jëmb ci kanam président ni ko kat ñun waa Thiès dañoo am benn doléance moo suñu domaine national bii la ñu bëgg nga jox ñu ci ay suuf ay terrain lañ ci soxla ngir daara yi kër yi parce que fi mu toll nii kër boo dugg fukki nit war faa nekk di nga fekk juróom fukki nit ak juróom ñuy tàncaloo ci biir néeg yi te loolu kat dafa ñaaw lii war si nga xamante ñun waa dëkk bi ñu mën a jariñoo suñuy suuf ci njekk ci jàmm ci salaam ak ci sutura imaam Malick daara ji sëggatuñu di nelaw de nekkutuñ fi di xaalaaw xaala su dong de dañuy initier ay projet fi mu toll nii am na yeneen projet yoo xamante ñu ngi ko war a tëggaat sur l'artisanat mhm. parce que kat ku xool ndaw ñi xam ni quatre-vingt pour cent ci population actuelle bi ñëpp ñu ngi secteur de l'artisanat ñii ay mécanicien lañu mhm. ñii ay maçon lañu ñii ay baykat lañu ñii ay sàmmkat la ñii lu nekk lañu kon nag secteur bi mel noonu buñ ci nekkee liñ ci war a def mooy que ni ñu initier ay projets yoo xamante ni si ay projets de la sur l'élevage sur l'agriculture sur l'industrie et tant d'autres projets daara ji tëddatul di nelaw imam daara ji dañuy initier ay projets di indi ay réformes di teg ay débats yoo xamante ni si nit ñi mën nañ cee sukkandiku ngir mën a suqale suñu gox politique de développement yooyu lañ soxla soxlaatuñu ay xastante ay saagantay ndey ay waxante yu ñaaw ay xotti orma dañ cee sonn ngir yàlla nañu delluwaat ci daara ji te xam ni kat taxaw suñu gox ngi nii ngir waa cees ngir waa Sénégal ngir waa àdduna ngir daara ji damay insisté ci daara ji parce que mënuñoo am lu ëpp daara ji daara ji mooy fan ñun suñu daara mooy Tiwaawan Tiwaawan mooy suñu wéeruwaay amuñu lu ëpp Tiwaawan tey jii li ñu nekkee muy mouvement bi bu Tiwaawan ni woon arrêté leen daal di arrêté dans l'immédiat ay njaboot lañu la seen Cheikh Ahmad Tidiane Sy woon ni la yàlla bu la bëggee dimbali foo mboo la kilifa golo orienté kilifa moo ñu orienté ba tax ñu am fitu wax am fitu jëf kon nag ñu ngi jiggulu ci kàddu yi xam ne seen doomay wax seen njabootee wax bu dëngee ngeen xam ni Ablaye wax bu jubee ngeen xam ni yàllaa di toll ci dayoom ci màggam ci teraangaam ci barkeem kon nag allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim non loolu nag moom loolu nag moom maxtaar na ngay ñu bàyyi tey du aspect politique à cent pour cent aspect boo xamante ni si jii la dañuy fete suñu première année mouvement taxaw suñu gox bientôt dinañ def ay ay ay conférence de presse yoo xamante ni si dinañ wax mouvement taxaw suñu gox kan la fas ne porté le soir du vingt cinq kookoo nar a toog ci bopp réew mi ci ndimbalu yàlla incha allah